بالله من الشيطان الرجيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم نرد بك الأعداء من كل جهة وبالاسم ترميهم من البعد بالشطط mbokk taalibe yi mbokk am di jàmm yi suñuy soppi suñu xarit ak képp ku ñuy suivre ci chaîne YouTube bii di Mystique 5995 TV man Serigne Abdoulaye Ndiaye fas yéene ñëw ak ci waxtaan bu am solo waxtaan bi nag thème la thème boo xam ne xam naa ne semaine bi yëpp moom la ñuy topp wala vidéo bu ñëw rek ci thème boobu la ñuy waxtaanee ba keroog muy yegg incha allah rek bu ñu yàlla maye fekk ak tal thème bi ñu fas yéene waxtaanee nag moo ngi jëm ci secret boo xamante ne kibiritul ahmar la. kibritul ahmar lu tax mooy secret boo xamante ne la boo euh, dafa gaaw a gaaw ba nga xam ne lépp lu ci nit sàkku ci zaahir ak ci baatin day nekk jooni jooni day nekk tarfate ay ni ci kaw xam gu mat sëkk ak liggéey gu mat sëkk secret bi ñuy junj nag du dara lu dul secret yi asmaul barhatiya muy 28 non suryaan yi nga xamante ne ñoo ngi leen tuddee asmaul barhatiya ñenn ñi dañu ne ñoom ay tur lañ tur yoo xam ne ci làkk suryaan lañu wàcc nga xamante ne vingt-huit tur lañ tur yàlla am ñu ne déedéet ñoom vingt-huit jinne yi nga xamante ne ñoo àndoon ak yonent yàlla Suleymaan moom mooy asmaul barahatiya mooy vingt-huit turu yi nga xamante ne dañoo àndoon ak yonent yàlla Suleymaan loolu nag bëri na ay wute yi ci am yenn boroom xam-xam yi dañ ne ay jinne lañ turu jinne la yoo xamante ne dañoo àndoon ak yonent yàlla Suleymaan am ñeneen ñu ne déedéet ay turu suryaan lañ yoo xamante ne euh, mën nañ leen jëfandikoo ci baatin waaye langue bi moo nekk suryaan waaye tur yàlla la man nag fi ma ciy développé incha allah fas ci indi ay waxtaan dama koy jël ci anamu tur yàlla mooy tey tur yàlla yooyu vingt 28 lettres yi vingt 28 noms suryaan yëpp bu ci nekk ñu wax fan la askano ci asmaawulay xusna maanaam ban tur la correspondre ci luxatul arabiya ci asmaawulay xusna su ko defee nag tur yooyu ñu topp leen benn par benn ba 28 tur yëpp mat bu ci nekk rek ñu indi ci leeral ak laaye biir waaye nag lépp mënee su ko jàngale. ñuy wax nag ne képp ku leen di jëfandikoo na nga ci am digal gu mat sëkk na nga ko gëstu tamit ci ki nga xamante ne daf la doy nekk borom xam-xam bu ko maîtriser ndax li ñuy waxtaanee ci internet bi encore une fois de suite mënul matale mënuñoo waxtaane lépp ci internet bi ba mu leer am na lu ñu wax am na lu ñu bàyyi tey tur yàlla kenn du ko jàng ci biir internet loolu dama ci catégorique mën ñuy joxe nag ay istixmaal yoo xam ne nit mën na ko jëfandikoo gis si boppam waaye jëmmi jàng tur dëgg kenn du ko def ci internet ku tok tamit na la dafa dama lay jangal tur yalla ci internet duma ko weddi de waye lu la ci dal nak yow mi ko top ya ya ko def sa bop parce que ñun li ñu mën moy ak indi ay tuuti leral waye amna lo xamne ku ko bëgg da ngay dem gëstu jikko ci ku ko xam lool ma ngi ci yé képp ko xamne ya ngi sétan vidéo bi tay nak dañuy yëm rek ci présenter leen tour yi insha allah rabbi su ko defee vidéo bi ci top bo leen ñu suivre da ngeen ci am ay leral yu gëna yaatu di wax nak ñi nga xamantene ñoo ñuy suivre depuis l'étranger nañ ñu hmm. comprendre parce que connexion internet bi ñuy utiliser c'est pas gratuit temps bi ñu leen di jox tamit di waxtaan c'est pas gratuit te man awma jot pour muy leer sama temps yépp ci sama liggéey laa ko def ak samay askar ak soxla yi ñi waaye nag mënuma toog ci internet bi di topp bëgg-bëgg nit ñi jël sama temps di ko sacrifier tout le temps loolu mënuma ko su ko defee côté boobu ñu comprendre si buñ sañoon nag ñëppay jëriñ ci suñu xam-xam li ñu am ak si néew ndax bokk naa ci ñi gën a tuuti xam-xam waaye nag bu ñu fàtte ne internet bi connexion bi ñuy jënd ci suñu poste la génn kenn mayuñu ko waxtaan bi ñuy waxtaan tamit xam-xam bi dañu cee sonnoon dem wuti ji ko kon luñ ci jël compal ko pour jaamu yàlla yi mën ci jariñu nañ ñu ko sante gërëme ñu ko te ñaanal ñu ko te ay coono yu métti la ñuy daj pour génn ci internet parce que bëri ñoo xam ne ñoo ngi jëriñu ci li may waxtaane te pourtant suñ sañoon suba ma dee buñ sañoon suba ma yàqule buñ sañoon lii may waxtaane du ma ko waxtaane bëri na ci ñoo xam ne ñoo ngi jëriñoo sama xam te loolu lañuy dund ak man te terewul loolu yëpp ñoo ngi ko muñ bëri na koo xamante ne tamit moo ngi lay xool di la catu di la làmmiñ may profité ci côté boobu di wax ne yéen ñiy seetaan suñuy vidéo ku ciy seetaan suñuy vidéo neel macha allah yàlla musal ñu ci cat ci catug làmmiñ ak catug bët ak catug xel ndax bëri na koo xam ne moo ngi seetaan sa di la catu di la te yëgu ko kon nag ñoo ngi koy sàkk ngeen di ko def fu ci waaye demee ba am lu mu yëg ci suñu jëmm ji rek na ne macha allah laa xawla wala quwwata ngeen dimbalee ñu ko <laughs> su ko defee tamit ñi nga xamante ne tamit ñoo ngi nekk di def ay kurtu kurtu ci suuf tamit loolu garaaw fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi kenn mënul am doomu aadama benn mënul am ñi ñëpp bëgg la ndax yàlla mi sàkk jaam yi sax ñëpp bëgguñu ko ñëpp nanguluñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa amoon nay noonu kon nag ñun ay jàmmi yu xeebu lañ mënuñoo bañ ku ñu ku ñu ku ñu mere wala koo xamante ne dañuy noonu kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ku nekkul ci dara kenn du la tal ba di la noonu <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin su ko defee ñu présenté leen tur asmaul barhatiya 28 lettres suryaan yi nga xamante ne ñoo ngi leen tuddee asmaul barhatiya aouzu billahi min alsheytan irrajim astahfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbi wasallim barhatihin barhatihin loolu nag su ma nee su ma tuddee par doublure damaa bëgg yow mi nga xamante ne yaa ngi may déglu nga gën a mën a teewlu li may wax muy tur yi waaye nag même boo koy zikkar di ko jëfandikoo ci wàllu baatin bu dee ñoom ñëpp ngay jàng doon par deux fois ngay cité nom bi maanaam par deux fois nga koy tudd comme nii ma ko waxee su ko defee bi ci jiitu ba bi ci mujj laa leen di dimal muy barxatiihin barxatiihin kariirin kariirin tatliihin tatliihin tawraan tawraan masjalin basjalin basjalin basjalin tarqabin tarqabin barxashin barxashin xalmashin xalmashin xawtiirin xawtiirin قلن هود قلن هود برشان برشان كظهير كظهير نمو شلق نمو شلق برهيولا برهيولا بشكيلق بشكيلق قزمز قزمز أنغلديد أنغلديد قبرات قبرات غياها غياها كيدهولا كيدهولا شمقاهر شمقاهر شمقاهير شمقاهير شمهاهير شمهاهير بكه بكهتهونية بشارش بشارش, بشارش punashin punashin tuuna shin shamqa baruqin shamqa baruqin fa la yem lii yépp boo limee da ngay gis ne 28 tour la lii nag mooy asmaul barhatiya ñoom nag xam leen képp di leen jàng benn yoon saa boo jullee waxtu julli bu nekk wala ñetti yoon day def ci yow kaaraange ba nga xamante ne ku la liggéey du yegg si ku la sànni kort mu delluwaat ci moom mi ko sànni jinneeg rab seytaane duñ dugg ci yow duñ mën ci yow dara lépp luy xeetu njabar wala luy yàqalaate du la jege ba pare béréb bi nga ko jàng yàlla da koy ar wattu ko jël rawaan yi samp leen fa ba nga xam ne lu bon du fa dugg du fa yàq kër goo koy jàng safara yàlla dana leen musal ci lakk-lakk lu ci mel ne ay safara yooyu moom tur yi kese ku leen bindandoo jël ko naan sangu feebar bu mu fekkoon sa yaram ci ngelawu seytaane wala liggéey bu bon wala wàllu rab da koy dindi bind leen tamit di leen suuroo ak cuuraay munaas ak libaan zakar ak euh, sunguf bii di sunguf foofu day tax tamit ngelaw seytaane bu mu fekk sew ak liggéey garab ak yépp da koy sekki ba pare tamit dafay maye ijaaba bëri na ay secret yoo xamante ne buñ koy liggéey ci wàllu ñaan day ànd ak asmaul barhatiya rawatina lu mel ni mu musalasatul yi ñi nga xam ne xam nañ yoonu tarbiya bi nga xamante ne bokk na ci ay yoonu tarbiyaam ak ay yoonu baatinam nga xam ne day ànd ak tur yi di ihin baqtar yaali sin jëli sin hatatu sin dam yaalin nangam nangam yooyu yëpp dafay ànd ak asmaul barxatiya nga xam ne mooy nekk xasm bi ñu koy tëjee ak ñaan ba muy ànd ak ca suuf su ko defee dana am image bu ma insérer pour wan leen tur yi loolu nag ab image la rek boo xam ne support la su loolu wéyee tamit di leen wax ne ngeen topp ci vidéo yi nga xamante ne moom mooy ñëw ñu topp leen benn par benn tur bu ci nekk ñu wax leen correspondance am ci laay lay na waaye waxaale leen tamit ban rawaan lay àndal ak tamit tuuti ci ay jëfandikoom yoo xam ne nit mën na ko jëfandikoo waaye nag lépp nag lu ci waaye di jëfandikoo na nga ci laaj ndigal na nga ko gëstuwaat ci ku la doy ba am ci ndigal ndax tur la yoo xam ne ni ñu gaawee tamit noonu la ñu amee danger ci ku ko xamul ndax dafa gaaw ci xëcc jinne ak rawaan ba tax na képp ku koy jëfandikoo war nga ci am xam-xam bu wér man dama leen di jox aperçu ci tur bi rek junju leen waaye li ci bëri mënuma ko cee leeral parce que du internet bi laa ko war a leeralee pour pour pour pour pour être plus Pour nos amis qui sont depuis l'étranger, je vous propose un thème concernant les 21 noms souriants appelés Asmaul Barhatia. Ce sont les 21 noms souriants qui sont appelés Asmaul Barhatia que je vous propose leur thème pour y discuter un peu. On ne peut pas tout éclaircir sur Internet, mais on peut donner quelques aperçus. Entre, euh, entre parenthèses aussi, euh, il faut nous comprendre parce que ce n'est pas évident qu'on puisse parler en wolof en même temps parler en français nous c'est normal qu'on parle dans notre langue maternelle parce qu'il y a des gens dans les dans les autres pays les gens font des vidéos sur leur langue maternelle que ça soit en Côte d'Ivoire, au Mali, etc., etc. Il y a beaucoup de youtubeurs, de marabouts qui sont sur Internet. Ils parlent seulement leur langue maternelle. Et c'est normal aussi même si on veut internationaliser notre domaine, ce n'est pas forcément qu'on parle la langue française, parce que déjà la langue française, n'est pas notre langue maternelle. Mais comme c'est plus accessible par rapport aux autres langues étrangères, on peut peut-être y euh, parler un peu. Hum, autre chose aussi, ce n'est pas évident qu'on soit là à vous parler de certains secrets ou vous faire quelques décryptages concernant quelques, certaines recettes mystiques. Parce que le temps là qu'on est en train de vous donner, ce n'est pas gratuit. On devait utiliser ça sur autre chose. Aussi, la connexion Internet, ce n'est pas gratuit. Il faut savoir ça. Nous payons notre argent pour vous fournir aussi des connaissances mystiques. Alors que vous ne nous donnez rien en, en contrepartie. Donc, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont signalé le problème de micro. Ils me disent que ma voix, c'est un peu basse. Mais pourquoi ne pas acheter un micro pour moi que les images là et tout, c'est pas facile. Moi, j'ai mon travail en tant que marabout. Quand une personne vient vers moi, il me paye son argent, je me concentre sur, sur son problème. Mais ici, Internet, on ne me paye pas, pour dire vrai. Tout ce que je fais, c'est pour la face de Dieu c'est pour avoir la grâce de Dieu. Mais aussi, je ne peux pas rechercher la grâce de Dieu et qu'on me force à faire certaines choses qui ne me sont pas accessibles. Parce que la vie est chère, rien n'est gratuit dans ce monde d'ici-bas. Donc, il faut nous comprendre sur certaines choses, certains points. Il y, en a même qui, au lieu de parler, il y a un certain monsieur, Pape McFay, que je salue de passage. C'est grâce à lui même que je commence à faire certaines vidéos, certains commentaires en France, que je recommence à faire ça. Mais si ce n'était pas à cause de lui, je n'allais plus faire de vidéos et parler la langue française là-dessus. Parce qu'il y a des gens même qui, au lieu de vous parler avec respect, avec gratitude, vraiment, avec, avec, avec, avec, euh, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de calme, ils vous exigent, ils vous parlent comme si vous, étiez vous êtes leur égal ou, ou comme si vous êtes leurs enfants. Ils n'ont aucun respect. Quand vous donnez votre connaissance gratuitement, eux, il, vous manque de respect là-dessus. Vous voyez des personnes dans les commentaires dire vous ne pouvez pas parler en français. Vous êtes qui Il faut parler en français, comme si vous êtes leur enfant. Alors que s'ils étaient en face de moi, ils n'allaient pas réagir comme ça, parce que je ne suis pas n'importe qui. Donc, il faudra beaucoup plus de respect et beaucoup de tolérance et d'indulgence et beaucoup plus aussi de compréhension, parce que ce que nous faisons là, ce n'est pas gratuit. Et c'est beaucoup, avec beaucoup de risques que nous sortons sur Internet. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir une personne parler de recettes mystiques ou de connaissances mystiques. Automatiquement, ils vont vous détruire ou vous dégrader ou faire des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Donc, on prend beaucoup de risques pour sortir sur Internet. Donc, il faudra faire des prières pour nous et nous encourager et avoir beaucoup de respect à notre égard. Dans le cas échéant, moi, si ça continue avec certains trucs-là, j'arrête complètement les vidéos vous allez vous concentrer sur d'autres personnes qui parlent sur YouTube. Moi, ça ne me pose pas problème. Moi, je continue. Déjà, j'ai mon travail à faire. J'ai assez de travail à faire. Donc, je ne vais plus perdre mon temps à faire des vidéos pour éclaircir certaines choses. Que ça soit clair. Maintenant, ce que, le thème que je veux aborder, c'est les 28 non souriantes, comme je l'avais dit. Les 28 non souriantes se lisent comme suit. برهتيهن برهتيهن كريرين كريرين تتليهن تتليهن توران توران مزلين مزلين بزلين بزلين ترقب ترقب برهش برهش غلمش غلمش قوطيرين قوطيرين قلنهود قلنهود برشان برشانين كظهير كظهير نمو شرق نمو شرق برهيولا برهيولا قزم زين أنغل ليدن أنغل ليدن قبرات قبرات غياها غياها كيده كيده شم شم قاهر قاهر كيدهولا كيدهولا شمقاهر شمقاهر شمقاهر شمقاهر شمهاهر شمهاهر بكهتهونية بكهتهونية بشارش بشارش تونش تونش شم شمقا باروق شم باروق et اسي terminé Ce sont les 28 noms souriants que nous allons aborder une à une avec quelques recettes là-dessus et quelques éclaircissements. Et en même temps aussi, montrer chaque nom sourian, quelle est sa correspondance ou son correspondance, si je ne me trompe pas, sur les noms divins qu'on connaît sur les 99 noms de Dieu, c'est-à-dire sur la langue arabe, parce que ces noms-là, ce sont des noms en langue souriante. Que ça soit clair. Maintenant, euh, ce sont des noms très puissants qui, déjà, si vous les prononcez une seule fois après chaque prière, vous êtes protégé de toutes sortes de malheurs et de sortilèges. Et aussi, si vous écrivez ça et buvez ça, vous lavez avec, ça va détruire toutes sortes de sortilèges qui se trouvent dans votre corps. Et aussi, ça va vous éloigner des djinns maléfiques. Et aussi, ce sont des noms qui sont très puissants. On les appelle des fois même Kibiritul Ahmar. Parce que ce sont des noms qui vraiment euh, sont très rapides à utiliser et sont très rapides en ce qui concerne l'exaucement des souhaits. Et ce sont des noms aussi très dangereux parce que pour utiliser ça, il faut l'autorisation d'un guide spirituel et aussi il faut une connaissance approfondie de ces noms. Dans le cas échéant, ça peut causer des problèmes, comme apporter des djinns qui peuvent peut-être vous tourner la tête ou vous faire peur, ou aussi ça peut aussi créer des maladies mystiques Mm, les connaissances savent de quoi je parle. Donc, il faut déjà une connaissance très approfondie avant d'utiliser ces noms divins-là. C'est très dangereux de les utiliser sans connaissance. Moi, je ne ferai que donner l'aperçu de ces noms et quelques recettes, mais je n'autorise personne à, les utiliser comme ci, comme ça. Et aussi, il faudra faire très attention sur Internet, sur les noms divins que vous voyez et les noms divins qu'on l'on donne. Parce qu'on ne peut pas vous expliquer en approfondissement tout ce qu'il y a à savoir sur les noms divers sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Pour chaque nom divers, ça nécessite beaucoup d'apprentissage. Donc ne, ne, soyez pas paresseux pour écouter un nom et utiliser ça. Ça peut créer énormément d'accidents mystiques. Donc faites très attention à ce que vous utilisez sur Internet et à ce que, surtout les thalassémies. Les thalassémies, là, il faudra faire très attention. Ça, c'est des avertissements. Moi, je ne ferai que donner quelques aperçus des thèmes que j'aurai à utiliser ou à donner. Donc, abonnez-vous, aimez, partagez pour faciliter le travail, pour que tout le monde en profite. Mais aussi, euh, vraiment, donnez-nous aussi vos suggestions et vos commentaires, mais que ça soit dans la politesse et dans la gratitude aussi, parce que moi, je n'aime pas les personnes ingrates. Inch'Allah, Rabbi, pour le reste, ça ira. On va poursuivre chaque nos de jour en jour, si Dieu nous le permet, si le temps nous le permet, parce que je suis quelqu'un de très occupé. Inshallah, mais on fera le maximum pour euh, faire euh, un exposé sur tous les 28 noms divins de la langue souriane commençant par barhatihin barhatihin jusqu'à samqa baarwaxin samqa Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa